seeni mbokk ak seeni xarit dañoo tàmm lool di leen yónnee xaalis application Tab Tab Send mooy solution bi yéen ñi nekk ci Europe bi moo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 euros dong la seen ay mbokk mën jot ci xaalis bi ci seen calpe Orange Money International wala seen compte Wizall sans aucun frais de retrait. te li ci gën a neex mooy yéen ñi nekk États-Unis Canada ak Royaume-Uni tap tap seen daf leen indil mbakkuus waaw waaw ak lu ngeen mënti yónnee du ngeen fay benn frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak tap da ngay dund lu la neex. xabaar yi lañu leen di baaxee tey si talaata gi yem ak ñaar fukki fan ak juróom ñu di leen dalal jàmm ci Dakar Buzz yéen ñi safoo di ñu teewlu bokk na ci lu ci gën a fës tontu ba Virginie baaxee ñenn ñi yàddu ci vidéom ya yamuñu ca rek ñu di ci tudd waajuram wu jigéen wa génn àddina docteur Idriss Baldé teg nañu ko loxo donte moo am ndam ca mairie wu goxam la ñu di ko toppee mi ngi rek ay xeetu ñaw tee téef yu ñamu àndal teg maire sortant ba Ahmed ayd sànni na ay kàddu yu tàng loola kii dafa sàcc élection yi ngir rek du falay gëti Macky Sall danañu ñëw ci coup d'état ba am Faso tàggat moo di ci toftandi ni ñu koy defee saa su yi ngeen taxee lu tuuti bàkk ba jib ma daal leen koy yaatalal mu ngoog bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xibaar yi candidat wu kuréelu Benno Bokk Yaakaar bi ci Ndakaaru gannaaw noppi waale ga mu àndaloon rek ci résultat yu njëkk ya moom Abdoulaye Diouf Sarr àdduna ca jaarale ko ci ay mbind ci Facebook bi di wax ci njëlbeen ni sant na borom bi démocratie sénégalaise amati na ndam ci scrutin wu 23 janvier ñi ngi ndokkale Seydina Issa Laye Samb ak Barthélémy Diaz ba nga xam ne rek am nañu ndam ci Yoff ak Ndakaaru Diouf Sarr di ci dolli di ko ñaanal gannaaw loolu gërëm na rek waa ndakaaru yëpp ah, ci la ñu ànd ak ñoom ci yéene bi ñu am rek ndakaaru boobu la yéene nag Diouf Sarr nee na du mësa dëñ la waxoon doon mutinerie soppi nañu ko coup d'état militaire ya nekk ci ginnaaw loolee def nañu déclaration altine gi ñaar fukki fan ak ñeent ca télévision nationale Burkina Faso ngir xamle ni daaneel nañu Roch Marc Christian ci seen ay kaddu gannaaw ba nga xamee ni rek nguuru ko Roch tëlee nañoo boole Burkina be yi ak rek yab di fa mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration jël nañu ndogalu rek doxee seen cër ci lu ni mel kuréel ga ëmb force de défense et de sécurité yëpp jublu nañu rek ci dakkal nguuru Kaboore ñaar fukki fan ak ñeent nee nañu nag loolee la waral ñu def ko mi ngi lalu ci bëgg a joxaat seen dëkk la ñu moom mu jëlaat yoon wu baax moomaat boppam ni ko capitaine Sidzore Kader di xamle kuréel ga lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba mu ko jiite di xamle violence te deret tuuruwu sa ñañu ca teg loxo ña leen denc ci bërëb yu wóor di leen jox seen àq ba mu mat ba tey ci déclaration ba militaire yi di xamal partenaire Burkina Faso yi ni danañu woy ci la ñu diggeek ñoom rawatina rek lu jëm ci àq ak yelleefu doomi aadama te si lu yàggul dara danañu tëral calendrier bu ñëpp di ànd ñu tënkee seen ay kàddu di wax ni daal suspendre nañu constitution ba di suudur gouvernement ga ak assemblée nationale ba frontière terrestre ak aérienne yi dañu ko tëj ko dalee altine couvre-feu li ko dalee vingt heures jëm cinq heures du matin responsable Benno Bokk Yaakaar yi janoo nañu taskatu xabaar yi ni ki altine yi démb gi eh, si ëllëgu élection locale yi El Hadji Amidou Kassé ak Seydou biral nañu rek ni eh, seen kuréel moo gagné joute électorale yi muy xamle naan daal si ñeent fukki département ak ñeent eh, Benno Bokk Yaakaar moo gagné fanweeri ak ñaar tey tendance yi si yeneen juróom ñaax yi département moom la jiital ci xayma nag am nañu ndam ci fanweeri département ak ne fukki capital régional Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné ah, si fukki région yeeg ñeent Ndakaaru Ziguinchor Kaolack ak Diourbel dong la ñu fa perdre ah, nee nañu ak Benno moo jël ndam li Euh, ca diwaanu Malicounda maire Maguette Sène bilan moom rek moo ko wàllu moo fa jiitoo nag 11 729 voix euh, ci waxtu yooyee candidat wu Yewwi Askan Wi ma nga am rek 8000 voix mu di nag ay poñ yu ñu foogewuloon euh, gannaaw loolu amal na ndaje dund ndam ba mu am rek ak ay ñoñam bu weesoo defetu mouvance présidentielle ci gox yi gën a mag ci réew mii lu ci mel ne Ndakaaru Ziguinchor Thiès ak Kaolack fësal nañu maire yu bees yi ba nga xamee ni rek li ci ëpp ci ñoom ay ndaw lañu ñoom ñile jëlee nañu fi rek mag yi leen gën a yàgg ci politique gi ca Yoff Seydina Issa Laye Samb ma jiitu ci li su Askan Wi moo fa daaneel Abdoulaye Diouf Sarr loolu am nag ca Ngor ba nga xam ne rek magget Ndiaye dugg na Ndofane Lagem ci département wu Kaolack di Diaw fanweeri at ak juróom jiitu ci li su wàllu Sénégal moo fa mën maire sortant ba di Mame Samba Ndiaye may directeur général des grands trains du Sénégal ne woon it Sarr Souleymane Camara ca Sicap Liberté 6 Babacar Ndaw ca Yeumbeul Nord Jamil Sané Parcelles Assainies Boubacar Diallo ca Cambérène Pape Sow Sangalkam Bara Gaye ca yëmbal Sud Khadima Ekor Golf Birame Souleye Diop ca Thiès Nord docteur Babacar Diop Thiès ak Thérèse Faye benn sous-officier ak benn militaire de rang dañu leen faat altine gi bi 10 heures ca diwaanu Nord Sindiane ci frontière u gannaaw ay balu feteel yu ay élément mouvement des forces démocratiques de la Casamance doon dóor ni ko directeur de l'information et des relations publiques des armées xamale APS texte ba di xamle it ne yeneen ñaari jàmbaar jàpp nañu leen tëj loolee mi ngi amee ci ab action de sécurisation ca sudu Bewiyam ñuy xamle ni yóbbu woon nañu ay renfort ci bërëb ba armée yi di xamle ni danañu def li wax yépp ngir taxawu ñi si ñàkk seeni ay doom ab notu préfecture mooy biral ni kuréelu Benno Bokk Yaakaar na 274 voix Yewwi Askan Wi topp si ak 17 274 voix Espoir Progrès am na 6 773 Wallu Sénégal 3 449 Gëm sa bopp 2 329 Gox yu bees am 1307 Les Verts am 766 ak Buntu bi 616 ñeel vote yi nag di fàttali rek ne 216 bureau de vote la ñu samp 119 775 inscrits 54 921 votants 259 bulletins nuls ak 164 662 bulletins valables exprimés ca diwaanu Saint-Louis gannaaw vote local yi maire sortant wu Wakhinane Nimzatt bi di Racine Talla ak militant wam nag dañu doon yuuxu ndam ba nga xam ne rek adversaire am bi Tahirou Konaté bu kuréelu Yewwi Askan Wi amal na point de presse di du baaraam Racine ci mbiru njublang ci résultat yi nee na nag Racine Talla dafa sàcc résultat yi ñoom nag duñu ko nangu te danañu ci dem ba jeex la mu bëggoon moo di wan njiitu réew mi dañu ko wëccu doyal ci mooma kii di Ahmed Aidara woote woon na caravane ngir waxtaan ak askan wi boobu la doxantu nag dem na ba ca mairie wu Wakhinane Nimzatt police jotoon na jël ay matuwaayam terewul nag Ahmed Aidara nangu na micro ba ci animateur bi a di wax ak Racine Talla naan ko xaw ma ndax yaa ngi làqu rek ci biir mairie bi wala déet ci suufu table mbaa ci armoire maa ngi lay yëgal ne daal li ngay ndamu du sa moomeel ndax dangaa sàcc ci résultat yi Ahmed Aidara di woo ko moom lu ko mooy rek lépp lu mën a xew ci seen ndodd lay tegee police ne fa rek terewul meeru gox ba ne rek ay ñoñam bu ñu jógee fa ne Ahmed Aidara nee daal bataaxal ba muy jox Racine moo di rek ci diir bu gàtt la ñu ko may mu delloo ndam li lu ko mooy tëkku nañu ko tegal ko ci ne ko Aliou Sall moom a jël na valisam jubali yoonu Fatick ñu baxee ngi laajte kan moo jiitu ci mairie wu Sicap Liberté bu ñu sukkandikoo ci la Soleil mi ñu baxee askan wi la ñu far rek ci kanami maire sortant ba santi seen añ ak Zahra Iyane Thiam bu kuréelu Benno Bokk Yaakaar moom i la nag rawee nañu ko lu baax yi ca de vote ya ci 13088 voix exprimées Yewwi Askan Wi am na 4155 voix Benno am fa 3022 kuréelu Gëm Sa am na fa 3323 voix bi moo ci topp ak 283 Abba Mbaye candidat wu Yewwi Askan Wi mooy tontu Mansour Faye di wax ne amul dara lu ñu ko wax danañu am ndawee ba ndaw rek fukki conseillers municipaux ak juróom ñoom ñi ci conseil municipal bi nag ñoo war a maire ba waxtaan moom ndax dafa yombul lool nga toog rek naan kaay leen jàppale mooma sukkali gox bi lii la Abba Mbaye tontu ci kàddu Mansour Faye ci juróom-ñaari candidat ya doon lam-lamee la mu toog ci boppu mairie wu Saint-Louis secrétaire général adjudant en service ca centre de recherche et d'analyse cryptologique féete présidence de la République ay defkatu ñaawteef Pikine Icotaf bu nu sukkandikoo ci les échos ñetti nit yi toll a diggante fukki at juróom-ñett ak ñaar fukki at ñoo ko agressé ba nga xamee ni mi ngi liggéey woon ba wiññeeku mbir maa nga am rek alxemis gi weesu mi ngi bawoo woon palais de la république wàcc Pikine Icotaf ngir jëndal doomam yi ay fruits ba mu génnee ci boutique ba sa lañu ko topp ba ñu ko jàppee nag ñu jiñ ko ni dafa sàcc awraay kenn ci ñoom noonee lañu ko dóoree ba mu sonn ba ko fa mu dem Pikine wax leen ni daal lañu ko def ñu xamle moo di ne dañu koo jaawale si bureau de vote numéro 3 le maire sortant ba Samba Bathily Diallo mi teewal Benno Bokk Yaakaar ca mairie Wakam voté mouvement patriotique pour le développement bu Abdoul Aziz Gueye am na fa 130 votes Benno Bokk Yaakaar am fa 80 voix loolee la ca Wakam ñi voté ñëpp di rek 347 si centre Mamadou Dia ñu nekk benn ci centre de vote yi gën a mag ak juróom-ñetti bureau ci ñetti centre de vote yi gën a ci Wakam di l'école fukki bureau ak ma l'école Mamadou Diagne ak juróom-ñetti bureau de vote ak l'école mbay Diop am fukki bureau ak juróom MPD du vainqueur Aziz Gueye moo ko jël ci kanami Samba Bathily Diallo bésu scrutin bi lañu ko tegoon loxo bàyyiwaat ko ay waxtu ci kanam responsable kuréelu gëm sa bopp ca Kër Massar ba Ndiaye ci turam dañu ko placé woon en garde à vue gannaaw ba ko gendarmerie dégloo def na guddi gu njëkkam ca chambre de sûreté altine yi incendie involontaire lañu di wala chambre criminelle bu ñu dëggalee rek la ñu koy toppee militantu gëm sa bopp bi dañu ko duut baaraam ni moo ama daal lakk ga woon ca kër militantu ministre du commerce Aminata Assome Diatta mi nekk parti au pouvoir di Amadou Sall ak sëtam bu am ñetti at Talla Sall ña nga principalu Ndakaaru jamono ji Mamadou Mamour Diallo ma jiitu ci listu kuréelu jàmmi Sénégal ca meerewu Louga Nord Ouest nangu na a defetam ba jaajëfal adversaire am Moustapha ma am ndam ci gox ba Euh, nee na nag dem nañu vote tendance yu njëkk yi wane na ni daal jàmmi Sénégal ñàkk na élection yi euh, mu di ci teg naan démocratie moo di pouvoir au peuple te rek waa Louga tànn nañu euh, du ñu laaj nag la waral seen tànneef votel nañu Moustapha Diop ta nangu nañu ko nangu nañu seen décision nee na it résultat ya wane nañu ni population wu Louga voté nañu bu baax a baax dara métti ko ci lu dul nag kan wo ko votel yépp defet ba nag du ko tere wóyal yéene ga am ca biir Louga ñàgg docteur eh, Idrissa Baldé placé nañu ko en garde à vue brigade de gendarmerie wu Samine eh, ñoo ko woolu placé ko en garde à vue gannaaw lakk ba jiboon rek kër maire sortant ba eh, ña fa rek moom dañu leen duut baaxam ni ñoo lakk kër Yoro ñuy xam ni daal ba ñu amee ndam dañu waajaloon ab doxantu ngir nuyu askan wi jaajëfal leen ba ñu yeggee weti kër maire sortant ba la mbir mi tàmbalee yàqu Omar Baldé di wax ni daal ñooñi docteur Baldé yi ñoo dugg sànni xeer ñu jékki rek taal moto ya ñu gaare woon ci weti mairie ba ba noppi rek dugg kër rakki docteur Idrissa Balde yàqate fa noonee la yëf yi demee ba ñi ñu rek taalee këru maire sortant ba si ñetti weer dong la toll ba nga xam ne rek Myriam Dior génn na àddina mu ne woon actrice série Virginie doomam bu jigéen bii di Virginie demoon sax ca France ngir yeggale fa njàngam loolee terewul nag Virginie ñu ngi di ko yàq lu ne ci Instagram bi la ko waral di vidéo muy dugal di ci sol ko neex wecc yi loole nag tontu na ca ñu koy baax yaay kàddu di leen xamal ni waruñu ko jugé dafa ne woon nag du wax ca la ko ñenn ñi di tuumaal waaye daal dañu ko tàmbalee fatt ci la ñuy tudd yaayam fu ñu toll Virginie naan leen daal su leen neexee ngeen xas ma sama yoon newu ci waaye daal nañu bàyyi yaayam mi ñuy tudd bés bu ne ci ay vidéo wam mu di leen laaj ndax daal xam nañu la muy dund ak it ndax réseaux sociaux ak vie normale benn la laaj na leen it la ñu bëgg moo di muy def ay vidéo di jooy nit bi tudd yaayam baalu ko ko te kooku dana yóbbu akam Virginie daal nee na ñuy tudd waajuram bu jigéen bi yépp baalu ci kenn. Ahmed Aidara tegal na waa Géejawaay la di programme ma ci gox ba ci digitalisation bu Géejawaay ba ci tabax ay lycée ki a xamal na population ba ne dana ko def diir ba mu fiy toog Ahmed Aidara ci ay kàddoom di gërëm Bougane Gueye Dany ndax a la mu xamle dañu daan dégg ñu naan Sen TV lay utiliser ngir def yëfam weesoo juróom-ñaari atu porte à porte yi juróomi atu nguuram ay gën a métti nee na nag sept cent mille personnes ñoo ko tànn jaajëfal na maire sortant ba baalu itam kuréelu benn bokk yaakaar ak Aliou Sall ndax nee na local yi dafa ni rek jongante football gërëm na ko it ci post ba mu def ci Facebook bi ak si seen groupe WhatsApp bi Ahmed di addu ci jafe-jafe askanu Guédiawaye di jànkonteel yépp ba tax na mu ne rek am nañu seen ay partenaires ñeel pavage yi loolee dana tax rek ñu tàgg tàggat ay ndaw ñu am liggéey lu jëm ci euh, formalité tam nañu dugal ay ndaw ci projet bi niki tey si talaata gi la Sénégal doon jano Cap Vert ñeel huitième de finale CAN 2021 Aliou Cissé jëloon ndogalu rek descendi ci 4-3-3 bi ak ñaari coppite onze départ bi di woon Famara Diédhiou Sadio Mané Gana Gueye Boulaye Dia Pape Gueye Nampalys Mendy Saliou Ciss Abdou Diallo Kalidou Koulibaly Bouna Sarr ak Edouard Mendy ay nit yu baax yi ñàkk nañu seen bakkan ci huitième de finaalu Cameroun ak Comores ca stade Olembe altine gi weesu ah, ci ab buuxante la loolee amee Canal Plus moo joxe xabaar wi ah, ne juróom-ñaari ñaax nit ñàkk nañu ci seen bakkan am na it ay nit yu ca jële ay gaañu gaañu ah, ci xayma toll nañu ci ñeen fukk ñu bari ci ñoom di ay xale mbir maa nga am ci mitang bi mbokk yi li lañ leen andiloon tey ci xibaar fi ci Dakar Buzz daañu la ko toppalaat ci lu ci gën a fës jaa ngeen jëf.